waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa mbokki Thiès mbokk Sénégal ñoo ngi leen di nuyu su ngeen gisee suñu daje fii du dara dañoo ñëw ci suñu kër kilifa imaam Abdou Khadir lii di imaam ratib bu jumaay jàmm gën ñun nag dañoo yor suñu mouvement religieux pour lemersance yàgg jàppale président la république te président day ñëw Thiès dañuy avertir nag lu bari ñëw cees bàyyi fi coow loolu la ñuy bañ te coow baaxul ñun ñoo ngi dañ daj nañ ci lu ne te ma suñu jëriñoo dara ci président mhm. mais dañoo muñ mhm. di ànd ak moom ndax moom lañu bëgg nit mënul bëgg bañ mhm. kees nag dañu bàyyi xeexante suñu biir bu dee dañoo bëgg président na ko ñëpp jàppale ndax man tey maa ngi ciy dox jàmb di def lu ne ndax collège da femmes ñi nga xam ne dañoo meroon mu mari di pour l'émergence ñoo dem dox ba dem wax ak seen njiit muy Maram Diop si laa ñu ne ñëwul jàppale président dañu lu baax doo nga ñu war ñi nga xam ne it yàlla indi na leen Cees jox na leen ay ndomba tànk ñoom it nañ taxaw ñu jàppale leen. Mhm. ndax loolu moo rafet. mais munuñu ku ñu far rek nit ñi di la xeex. président ah yaa ngi ñëw Cees ñun lu ñuy bañ mooy nga ñëw fi nga dem ñu ne coow bàyyi nañ fi coow. Mhm. kilifa diine yi nekk Cees kër yëpp suñu sañoon képp kuy kilifa diine bi nekk Thiès boo ñëwee wax la moom am na dëj ju fi nekk boo ñëwee nga dem jaale leen. ndax liggéey nga am de bilan bu am nga bilan boo xam ne kenn amul lum ci ndakam takam la ñu moytu yàq bi nekk ñu fi nag di kii ne ñëpp ànd nekk benn ñi nga xam ne fal nga leen ba ci lépp ba ñi nga xam ne ñoo nga lay jàppale ci ay sargal yi comme ab Ablaye bi ñëpp nañ ci jàpp ndax ñun yow la ñu am amuñ keneen ku du yow. xam nga lu ma la amuñ kenn ku du yow ñun nag ñooy mouvement religieux pour lémersance te ñun nag wax dëgg yàlla ñoo ngi ànd ak yow mais kenn gis ci boppam ndax soo ñoo recevoir te dañoo muñ nag comme ni ko yàlla di waxe inna allaha ma sabirina ñoo ngi ànd muñ di ànd ak yow ndax kenn du bëgg bañ mouvement religieux pour l' ñoo fi ànd ñun ñoo toog fii ñëw ci suñu kilifa imaam Abdou Khadir lii ñi ma fi nekkal ñu fi nekk ñëpp ci la ñu bokk yal na la yàlla jàppale ñëw bi ngay ñëw it yal na nga duggee ci dëkk bisimilah rahmaani rahiim nga eggalee ko ci alhamdulilah rabil aalamiina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bi ñu ginnaaw bi ñu santee sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki adduna bi tey ñun mouvement religieux pour l'émergence ñu ngi fii ci Thiès ci quartier bu ñu naan jàmm gën kër imam Abdoul Khader li fa tabarakallahu ñu ànd ak suñu njiit imam Cheikh Omar Dem ñëw fekk si imam Abdoul Khader li di imaamu ratibu jàmm gën ñu ñëw ànd koog sunu baay El Hadji Ngañ Fay sëriñ sëriñ Dame sunu sëriñ toogaat ni di imam Baye Modou Mbuub fa tubaarakallaahu man grand sëriñ de Thiès may lancé appel président Macky sallo ku la nekkal ci naaj wi nag nekkal ko ci kër gi président ñaata yoon la ñu taxaw def point de presse ci sa jëmm ñaata yoon la ñu taxaw ngir yàlla jàppale la ba li nga bëgg ci réew mi yàlla jox la ko kon nag yaa ngi ñëw Thiès ñu ngi lay ñaanal suñu boroom yal na yàlla indi la jàmm ñu ngi lay dalal di la wax tafadal maskura yal na yàlla defal la sutura waaye nag am na loo xamante ni bi ñu ngi la koy fàttali ñun yow la ñu am yow it amoo lu ñu ëpp ndax subaa ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi taxaw di la protéger ci sa bilan kon nag ñi ngi lay ñaan boo ñëwee Thiès ñun mouvement religieux pour l'émergence bi nga dalal ñu waxtaan ak ñun ndax ñun Thiès kii xam nañ fi lu bari kees gii fii la ñu dëkk bu ñu deewee fii la ñuy suul te incha allahu ñaanuñu yàlla génn ko kon ñi ngi lay ñaanal boo ñëwee yal na yàlla defal la jàmm ak mboolem sa gouvernement waaye nag ñun mouvement religieux pour l'émergence bàyyi ñu xel ndax nag nit fa tubaarakallaahu topp gestu safoo faale fi loolu rek la ñu amoon lu ñuy wax ak yow wa ma zalika ala allah bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi comme ni ko mbokk yi fi jaar waxe rek loolu rek lañuy sof suñu kàddu di mouvement religieux pour l'émergence di ànd ak président Macky Sall ci fànn bu nekk ci côté bu nekk muy ñëw nag ci dëkk bi ni ko grand sëriñ waxee bëgg yëg safoo faale ñuy wax président ni ko sonn nañ ci yow guddi sonn nañ ci yow bëccëg nu ngi ànd ak yow fepp fa tabaarakallaahu boo ñëwee Cees nag mbooleem ku fi kilifa bu ñu sañoon nga recevoir ko waaye rawatina ñu ñii nga xamante ni ñu ngi sonn ci yow guddi ak bëccëg ñu ngi lay dalal jàmm di wax ni dëkk baa ngi nii di Cees fi lañu dëkk fi la juddoo fi leen yaroo ku nekk ku fi kilifa ku ne xam nañu ñu ànd ak imaam Abdul Xaadir li ak président Umar Dem ñu ànd di la liggéeyal saa su ne kon nag ñu bëgg rek di la dalal jàmm di la wax ni dëkk baa ngi noonu yàlla na nga agsi ak jàmm ci bismillahi rahmaani rahim ndam li nga fi yaakaar ak li nga fi yaakaar yëpp yàlla na la ko sunu borom defal wasalaamualeykum wa rahmatullah billahi samil alim min sarri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julli yi mbokki islaam bi mbokk yi nu bokkal yàlla ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mi am jàmm sutura salaam yàlla nañu ko yàlla defal di wax yàlla li passé yëpp neex na waaye lii ñëw yàlla na ko dàq tey nag ñu daje fi bëgguñu di baamtu comme ni ko alaaji grand sëriñ waxe te waxam rek fa daanaka lépp mat na ci macha allah waaye itam ñu dellu siwaat comme li nu fi dajale muy président de la république yàgg naa ñëw cees waaye bu ñëwee cees ba dem am na lu fi daan xew lan moo fi daan xew mooy ñenn ñoo ko daan jël bàyyi ñi ci des ku soxla lépp nag soo ñëwee da ngay déglu ñëpp te bañ a déggal ñëpp kon ñi ngi lay xaar ci sa ñëw gii mu am jeexiital ci yow bul fi ñëw ngir ma sàmba bul fi ñëw ngir ma demba yow président de la république Sénégal yépp yaa leen jiite Cees gii ku fi nekk tey yow yaay président am ñi nga xamante ni si yëg nga ne ñi ngi ci dëkk bi te amal nañu dëkk bi njariñ soo ñëwee déglu leen am na fi ñu fi nekk ñoo xam ne soo ñëwee wax ak ñoom doo jàll ci ñi ci des te ña nga bàyyi mën naa am ñoom ñoo ëpp njariñ ka ñi nga waxal kon li ñuy xaar ci yow mooy jàmm joo xam ne mi ngi law fii ci Sénégal ñi ngi koy xaar ci yow jàmm jooju nag bu ëgsee ba cees mooy daa fekk boo fi ëgsee ñi nga war a wax ak ñëpp nga wax ak ñoom président gars yi bañu ñu la de parce que yàlla mënula fal ñu nekk ay kilifa di la bañ waaye am na loo xam ne nag suñu ko gisee du ñu la bañ waaye li nga def moom lañ dul bëgg beneen bi ci desit mooy ki bëgg foo tëdd ak ki bëgg ku leen wettali bu leen tëjal bunt bi boole am na ku ci waxul dëgg ñi ngi lay ñaan yàlla na yàlla indi la ci jàmm yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm jàmm jooju la ñuy xaar li ñuy xaar ci yow nag mooy coow lii nga xamante ni si mi ngi jóg ci senegal na dal nan lay dale mooy li la ci war yow def ko keneen a keneen la ko ci war def ko daam saaxu li ko ci war mu def ko Thierno Omar li ko ci war mu def ko Grand Serigne li ko ci war mu def ko te xam ne Sénégal ñoo ko bokk amuñu beneen dëkk bu dul Sénégal xamuñu beneen dëkk bu dul Sénégal soxlawuñ beneen dëkk bu dul Sénégal kon ñi ngi xaar jàmm daal fii ci réew mi yàlla ko yàlla defal ci barke yonent mi mooy Cees amul géej li ñu fi xalaatoon mu nekk fi nañu ci président dimbali ndaw ñi nga xamante ni si dem nañ ba xamatuñu fu ñu jëm jakarta la ñu wut di ko dawal semaine de fer bu ubbi woon tey bëri na xale bu xëy su amee am xëy bëri na loo xam ne bu ko jëlee yët ko way juróom ca kër ga dina ko jariñ beneen bi ci des it mooy ñii coow ñëpp ngay dégg dañoo gisul seen bopp ci mbir mi kon président ñi ngi lay xaar yow ci xëyu ndaw ñi li ngay def d'accord nañu ci baax na waaye loo ñu mën a dimbalee ci semaine de fer gii fii ci Thiès dimbali ñu itam ci li nga xamante ni si mooy xëyu ndaw ñi ñi ngi koy xaar ci yow te incha allahu njortu nañu ne boo ko diggee di nga ci def la war ndaw ñi bu ñu amee am xëy jël li ñuy jël yët ko seeni jur dana leen jàppale coow li ci dëkk bi nag ci parti bi nga xam ne mooy bennoo boo agsee itam recevoiral ñëpp waxtaan ak ñoom recevoiral ñëpp déglu leen recevoiral ñëpp wax ak ñoom la nga ca man nga def ko la nga ca mënul nga dig leen dem wuti ko te fas yéene def ko mouvement bi nga xam ne nag mooy mouvement réalisé pour l'émergence yàgg nañoo ànd ak yow boobu yi yëpp xewut waaye nag bi ñuy ànd ak yow it mësoonoo woon ne nañu ànd nañ ak yow waaye teewut ñun ñoo ànd ak yow waaye ànd bi nag dafa am lu ko ënti ànd bi it dafa am lu ñu boole ànd bi it dafa am lu ñuy xaar ci yow ndax ki la xëyal ci suba huit ba cinq heures jot war nga faa jaar boo amul añ boo ko joxit ne ko jërëjëf kon jërëjëf jooju daal ñu ngi koy xaar ci sa ñëw gi incha allahu te nag bàyyi nañu ko xel wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.